ndax bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam signification bi wane na boppam ba pare comme ñëw nañu ànd ak monsieur le maire euh, toog ñàkku euh, wax askan bi nag ñàkku bi mooy faju mbir mi yëpp képp ku bëgg mucc ci mbir mi na nga parce que loolu mooy solution di sant nag président la république bi nga xam ne tey moo am sañ-sañ am taxawaayam boo xam ne bokk nañu si réew yu Afrique yi jëkk am vaccin yi loolu taxawaayu président la république la ñu sant ko gërëm ko te jël na alal bu bari pour def ko ci pandémie mbir mbir mi euh, sàmm askanam kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant aussi sunu monsieur le maire bi nga xam ne taxawaay bii nga xam ne taxaw na ko tey jëb ba ñu mën a ñàkk fii si Mbambilor localité Mbambilor bi arrondissement Mbambilor nga xam ne adduna bi yëpp ñu ngi gis taxawaayam rafet na jege na population am xam na population mu ngi jàppale population lii taxawaay bii euh, benn la ci. kilifa diine bu ne euh, xam nga kilifa diina ak kilifa aada ñaar yooyu dañoo ànd waaye saa yu kilifa diine taxawee rek kilifa aada ngi taxaw si wetam saa yu taxaw kilifa aada taxawee it kilifa diine mi ngi ci wetam lii day wane ne amul lu ñu ñor lu dul askan bi ndaxte kilifa diine toujours moom moo gën a dëggër sax ak kilifa aada su taxawee donc ñëpp ñëpp ñu doon laam-laame di am xel yaar euh, ñëw na taxaw na pigiru naam sax man dama ragal pigir pikiiru naa ñàkku naa kon dinañ xam na lii moom lu wóor la waaw su fekkente ne wóorul woon du ma ñàkku honorable di ñàkku keneen di ñàkku saa yu ñu toogee ak taalibe yi ñu ngi leen ne xamal ne ñàkku bi rek moo fi sës parce que def nañ lu ne jël nañu ay mesures de barrière tëj nañ jumaa yi tere nañu rassemblement yi ñu ngi takk masque yi ba léegi ñu ne nag lii nag moom fi mu ne nii amul beneen solution du lu ñàkku mooy dernière solution kon nag dernière solution bi mooy ñun ñëpp ñu ñàkku loolu laa wax askan bi loolu